Saliou mi ngi lay nuyu bu baax nee na kon sëñ Saliou sëñ Bass nee na mi ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal di la ñaanal ci barkeb Serigne Touba yal na la suñu borom dëgëral nee na yal na la suñu borom dëgëral kartalan la ba sa waajur wa tàmbali ba li si sa waajur wa tàmbali woon ta nga ca ta ca sëñ Seexum sëñ Saliou démb mu seere ko sëñ Seexum sëñ Saliou démb rek seere na ko foo nekkul loolu nee na loolu doy na sëkk nee na na sa sëñ Bas nee na sam na sam xel dal. nee na na nga góorgóorlu bu baax. te yaatal sa dënn. yaatal sa yitte. yaatal sa yitte. boo ko defee rek boo ko defee rek. nee na xam na xam na yaa jaboote ñëpp. nee na fa nga jëm di fa yegg amin nee na sëñ Muntaxa mii fi ne. gërëm na nee na gërëm na la de. te waxaat na la ko léegi. na la ko léegi. sëñ Cheikh mii di sa buntu ci sëriñ bi. démb seer na ko nee na démb seere na ko te fekke woo ko. nee na loolu doy na sax yàlla nga fi yàgg Mbàkke. maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp te wax sama mbëg ci nii ma ñëwee siyaare si sëriñ Bass. li may ñëw sax xaw ma woon ni sëñ Mountakha ngi fi damaa ñëw rek ñu ne ma mi ngi fi ma xam ni moom dootul yàlla ma ma bañ faa dem ma dem siyaare ji ko. waaye ndeysaan jëlee naa fa mbég moo xam ni moom ñu ngi ñaan mu yàgg fi tëwër di leen sant nag Mbàkke sant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem dimbali nga ñu ci saayir dimbali nga ñu ci baati taxawu nga nu bi fi sunu waajur jógee ak léegi taxawaay bii rek nga am mooy taxawu nu bañ sunu ndong taq suuf nga dimbali ñu tette ñu yiir ñu loolu nag dinaa ko wax ba kanam ci kanam àddina ah dimbali nga lool dimbali dimbali nga nu ndimbal loo xam ni koo xam ni eh, sëñ Béthio eh, soqi koo nga ci moom yëg nga ko xam nga ko waaw ah, boobu taxawaay ba tax na ñu ngi ñaan ngeen yàgg fi téwéer ci barkeb Serigne Saliou yàlla na ngeen àggale